نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي salaamaaleykum suñu mbokk internet yi sans limite ginnaaw bu ñu leen nuyoo kontaan ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun alors tey ñi ngi fii nga xamante ni mooy cité Soprim certifié ki nga xamante ni mooy Cheikh Baye Thiam Yacine euh, xam naa ne nag mi ngi leen ko bu baax baax ci site bi nga xamante ni mooy sans moom mi nga xamante ni dafay yëngu ci wàllu ñaan euh, wàllu euh, bi nga xamante ni mooy seet waaye nag lu waral absence bi bokk na ci li ñuy waxtaanee mais balaa ñu sori ci waxtaan bi nag dinañ dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yu sans limite ñu ñëw ci waxtaan bi alhamdulilahi rabil alamina wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam rabi israh li sadri wa yassir li amri wahlul oqdatam min lisaani yafqahu qawli ñu ngi wax waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi waxaat tam asalaamualeykum képp koo xamante ni yaa ngi ñuy seetaan yaa ngi ñuy déglu e, ci Sénégal ak ci biti Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo safoo li nga xam ne mooy chaîne bi di e, sans limite seen mbokk seen xarit Cheikh Baye Thiam Yacine nuyu na leen fekk leen fi ngeen toog ñaanal leen jàmm bismillah macha allah am na solo alors balaa ñuy sori nag euh, ci wàllu <clears throat> ñaan bi ak euh, seet yi ak ngeen li nga xamante ni xaru tabaski da koy def ak tegtal yi ñu si war a joxe euh, dèjà lan moo waral absence bi daanaka bu ñu dëgg jee gis mot na at ak ay weer lan moo waral absence bu yàgg bi. alhamdulilah li nga xam ne moom moo waral wute gu yàgg gi géej ko ci li nga xamante ni moom mooy ci chaîne YouTube yi. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax dafa fekk ne suñu liggéey moom moo tëddee noonu ndax doomu aadama lépp loo xamante ni yaa ngi koy def rek da nga ci war a taxaw am loo xam ne lu ñu tuddee taxaw sellu la mm. ndax depuis daaw ba ren am na njittewu ñàkk dugg ci li nga xamante ni moom mooy ci wàllu vidéo mm-hmm. jàmmu rek la nag du dara mm-hmm. ndaxte ñun dañoo gëm ne mm-hmm. su fekkee ne da ngaa wax nit ñi ne ñëw leen ma defal leen dara su ñëwee war nga dagg nag say yitte ngir ñoom li loolu mooy voyage yu bëri ndax tooguñ tukki yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko doon def ci nit ñoo xam ne ñu ngi safoo di ñuy woo seeni barab ñuy liggéey ak ñoom mm-hmm. ak liggéey yu mag yu bëri yoo xam ne tam yu ñu joxoon la ba nga xam ne munuñ koy booleeg ñu toll nag di jàkkaarloog nit ñi ndax la nga xam ne moom lañ lancoon moom lañ doon saxar bi pour mën koy wan door a jublu ci waat ci li nga xamante ni moom mooy euh, woote gi ndax lii woote la ndax ñëw leen ma defal leen bu nit ñi ñëwee nag defal leen lu leen doyloo mm-hmm. alhamdulilah ci nag ci loolu ndaxte yàgg nañ Saalum mm-hmm. génn nañ réew mi dem nañ ñëwaat nañ nekkaat nañ Dakar mm-hmm. waaye lépp loo xam ne nag luñ ci mébétoon wala luñ doon ci def rek ñañ doon ci jëflante sant nañ ñàkk may ñu ngi wax alhamdulilah ci bunt boobu noonu mhm. macha allah macha allah euh, laaj bu njëkk bi nag ci wàllu ñaan euh, dañu wax ci wàllu seet ndax seet ak ñaan bu nekk mën naa dem bàyyi moroomam wala déet. Euh, déedéet man de duma demale benn bi maay bàyyi moroom ka mhm. ndax Cheikh Baye Thiam Yacine dafa wax képp koo xam ne mu ngi jëflante ak moom. li muy njëkk jëflante yow mooy dalay seetal. ci wàllu seet nag lu ñuy def la ñun ndaxte mënuma la ñaanal te musuma gisante ak yow wala xaw la te seetuma li nga xam ne moom mooy say mbir te nit nga ñaanal ko itam foog nga xam lan mooy mbiram mm-hmm. xam bidéewam xam kañ lay fenk kañ lay suux xam tamit lan mooy xaalaam mm-hmm. ci wàllu rawxaanam ak lépp loo xam ne lu ci aju la mm-hmm. ci loolu nag alhamdulilah ñu ngi ciy def bunt yoo xam ne wax naa ko fii daaw euh, bi ma fi géej te dinaa du ma ko wax li nga xam ne ñun moo ñu yëngal ci wàllu seet heure bu ñu baxee rek dañ taxaw jàkkaarloo jaami ne banañu waaye képp koo xam ne kuñ mas a seetal la mu su ñuy seetal nit mbir te duut ne ñun ñoo mujj moom moo mujj nañu doy na ça veut mooy lépp loo xam ne lu aju ci mbiram la bi min bidaa ilaa bi mu ci dalee ak ba fa muy yem ci ay dundam dañ ko koy leeralal ndax buntu bopp yàlla baaxee nañu ko du ma toog naan la nag nii laay seetee wala nangam ndax waxoon naa ko fi ne banaa loolu mhm. sa baay caam yaa si ni muy seetee mooy sa tur koy jox sa tur yaay ak ñaata at nga incha allahu rabbi waxtu wi ma la jox su jotee soo ma woowee lépp loo bëgg a xam si sa mbir mhm. di ko xam te na ko bëggee nga koy xamee mhm. li ci kanam na xaw ma waaye li passé seetalaguma nit mukk mu ne ma li nga ma wax ak li nga xam ne mooy li am lu safaanoo la au contraire damay seetal nit mu dem ba ay ronkañam di wadd mhm. wala mu dem sax ba foog ne kii nii dañ ma ko jaay ndax su fekkoon nit ma booleeg moom dana wax ne kii est-ce que waxaluñ ko samay mbir loolu nag mindeef man te taxaw tam ci ci kurus seetuma ci ndox déedéet danga may wax li ma lay laaj ni la may xamal xamal ma ma wax la la ma lay wax fa lilahi alhamdu ker bu dañee ci man nag ma ne seet googu banaa ko ndax mboolee mi seet jàng nañ ci yu bëri jàng nañ raml jàng nañ seet ci kurus jàng nañ seet ci alxuraan jàng nañ tamit seet ci ndox kon yooyu yëpp alhamdulilah am na luñ ci pekk mais jamono ji nag moom dangay wax liñ la laaj ñi ñu wax la li nga xam ne moom mooy liy wér asalaamaaleykum mhm. macha allah macha allah euh, xam nañ nag actualité bi wala sax euh, tabaski bi mi ngi jege si daanaka li ñu euh, bëri ay ngëneel nag euh, ñu war a ko waxtaanee alors lan nga ñu mën a wax dèjà ci tabaski bi jub si. alhamdulilah tabaski su jublu see dafay doon loo xam ne feetu mbégte la feetu euh, yokkute la. Mhm. te yonent bi sallallahu alayhi doon loo xam ne lu mu sunnaan la ci ay xeetam mm. muy mbir moo ne rek dana am loo xam ne feet lay doon mm. mu bëri ngëneel lool nag mm. ba at mu jot su jublu see nga ne yooyu danaa ko fàttali jaam jaami ndax duma bàyyi ba mu paase manaan leen su ngeen yëgoon ndax képp ku jël xaalisam di si jënd tabaski danga nga ci war a jëfandikoo ndaxte yàlla subhaanahu wa taala euh, biral na wala mu wax ne yàlla soxlawut yonent bi sallallahu alayhi si buntam la ko waxee ne yàlla soxlawut deret ji soxlawut yàpp wi waaye nag ragal yàlla gi ngeen ci jublu moom la soxla mboolem lu ne ci tabaski rek yaa ngi dégg ëllëg yowmal am dafay bokk ci li nga xamante ni si sa màndaxay jëf yu baax lay doon ñu peese waale ko mm. du deret ji du karaw gi du yax yi du yàpp yi mm. loolu nag suñ ko waxee nitu baatin war na cee déggee ne tabaski amul dara luñ ci war a sànni mm. moo tax man bu jublusee dama ciy def vidéo fàttalil jaam yi ba ku am tabaski sa kër rek nga xalaat ne mën na fajee sa xaajo ndax bépp xaajo bu nit am rek mën na fajoo ci biir waaw lu mu ci mënta doon nag. Mhm. macha allah alors bu ñu bu ñu ñëwee ci ci xar mi si boppam yan tegtal nga ñu mën a may nit ñi. wala li ma ciy wax mooy ñi am tabaski laa wax nañ ko préparé képp koo xam ne ku ci bëgg dara la mën lañ ci jëm li ci njëkk mooy ci wàllu kaaraange. kaaraange tabaski am na lu ne ci biir tabaski. muy mhm. xarum tabaski. Mhm. képp koo xamante ni boole nga kook li nga xam ne ñun yore nañ ko. su boobaa yow mi moom sa tabaski yaa koy wut ñu jox la li muy àndal boo ko sangoo képp koo xam ne ku la liggéey la wala mu jog jëmee ci yow dafay def ni xaram tabaski mi mooy dafay dee mhm. la chaka fii mhm. ci biir loolu ba tey tamit mhm. affaire mbir moom ne ci biir tabaski nekk na ci képp koo xam ne jox nañ la ko sa mbir takk wala say mbir dëgër wala nga doon koo xamante ni seytaane moo la jàpp soo ko sangowee dafay tàggoo ak yow nee naa la nit koo xamante ni feebar na ba laccaaral sax soo ko sangee wala nga jox mu naan ko dafay tàggoo ak moom kon ci wàllu kaaraange dama gis ne tabaski amut loo xam ne lu ci yem ak moom la waaye nag benn mbir la ci tabaski duma ko wax mukk ci biti du ma ko leeralal képp ci rek da nga may woo may la jëlal nangam sa tabaski nga garder ko wala kaay ma jox la nangam soo demee nga jël nangam si sa tabaski nga boole ko ak moom nga utiliser ko da ngay doon koo xam ne ko si jël amut nag lenn ma ciy def lu àndut ak alquranul karim mm, mm, mm. nekk ci tabaski rek dafay ànd am lu muy àndat dëppoog moom ci ay aaya ma jox la ko ci wàllu kaaraange loolu la su fekkee dañoo ñëw ci wàllu ubbeekaay ci tabaski mm-hmm. am na ci tam loo xam ne ci biir tabaski ci la nekk mm-hmm. ci eh, xar mi lay àndat képp koo xam ne ku ko jëfandikoo la. Mm-hmm. balay bis boobu di dellu si. Mm-hmm. boo ko jëfandikoo tey masalan alxames bala alxames bi dellu si. Mm-hmm. da gis résultat. daf lay xub bi dafay maye alal lool. te dafay yokk nit ki dafay joxe bayra. képp ku bëgg bayra daraa ngi ci biir te jëfewut a xam sax. parce que tabaski nee la karaw gi sax. dafa bokk ci loo xam ne luy jëriñ nit ki la mhm. si wàllu ubbeekaay kon moom i tamit am na cër ci tabaski mhm. soo ko booleeg saafara bi ñu lay jox nga sangoo ko juróom-ñaari fan dama lay wax ne sangoo ko bala muy man ñetti fan nga gis commencé gis njëriñ mhm. amul sikki sàkk ci loolu bu dee ci wàllu nag am am boo xam ne bu dagan la te du yéex masalan nit ñi di la jox te doo xam jox jox gi fan lay bàyyee ko ndax dama koy wax fu ma toll ne wërsëg ñett la wërsëg bi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala mooñee ne la ko mooñee na la ko bi nga nee si sa biiru ndey boobu forcé danga ciy jot kenn mënu ci dara waaye wërsëg ko bi wa kullu min rizqihi woo sax bi nga xam ne nag moom la xam fan la koy jëlee mooy wa yarzuquhu min haysu laa yaxtasib mooy fi la yàlla di joxe te doo xam fan lay bàyyee su dee da ngaa loolu nag ci wàllu wërsëg am na benn aaya bu ne ci alquran xam nga baatu razaaku benn yoon la ñëw ci alquran. Mhm. benn yoon la ñëw ci alquran baat boobu noonu am na nuñ koy tëggee am nuñ koy liggéeyee. ci mhm. turu yàlla. Mhm. boole ko ak moom suñ la ko joxee nga mooñee koog lañ la waxoon nga jël ko ci tabaski bi nga utiliser ko nga sangoo ko. wala nga takk ko kenn mënut la tiim ci famille ba nga xam ne moom nga nekk. heure boo waxee tam ñu déglu la te dangay ngay am bayra te dafay ànd ak li nga xamante ni moom mooy wàllu kaaraange. ba tey tam ci wàllu tabaski der bi. ñu ngi ciy liggéey goo xamante ni képp ku ko takk paaka du dugg sa yaram lépp lu xeetoog weñ du la laal tey itam wute la mooy fépp fu musiba am yow doo ko fekkee doo ko sa gannaaw lay doon mhm. kazaalika itam dafay doon loo xam ne ñu ngi ciy liggéey loo xam ne ci wàllu wóonoon ci wàllu ba tey itam ni ma yoxtul mhm. mooy soo ko takkee sax nit bu soxee fetal jëmee ci yow du dal te ku nekk xam na ne euh, euh, tay Saalum boo fa demee tull yooyu duut sax loo xam ne lu ñuy nettali la. Mm-hmm. bu taxutoon ak lenn sax mën nañ la koy tuddal parce que dañ koy liggéey te ci laxat yaakum ci lay àndat te ku nekk xam na ko may profité di ñaanal suñ maam bu baax mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana bokk na ci ñi demoon guerre deuxième guerre mondiale. Mm-hmm. te bokk na ci tubaab yu daan ko roy. ba koy woyee jaakum jaakum ngir lan mooy baat boobu lañ bëggoon wax te mënuñ koy wax mhm. li ma bëgg a wax foofu noonu intéressé wul nit ñi muy sama maam déedéet waaye dama bëgg a wax ne ci xarum tabaski am nañ ci ay bunt yoo xamante ni kuñ ko liggéeyal insha allahu rabbi mucc nga ci li nga xamante ni moom mooy ci wàllu seytaane mhm. daf lay aar lépp luy xeetoog jam-jam da lay aar lépp luy xeetoog luy tàkk ci wàllu safara mhm. sëriñ bi may ñëwaat ba tam ci daru tabaski boobu noonu ñu ngi ci liggéey gàllaaju kër boo ko defee ci kër kër gi dafay naat dafay jëm kanam xuloo du fa am deeg ndaw du fa am te itam musiba du fa wàcc soo ko suulee ci kër gi barab boo ko suul tam yaa koy moom suuf boo mënta xëccoo lu mu yaatu yaatu bu dee yaa ko moom bu ñu la ko joxee defaral la ko liggéey leen liñ si liggéey nga def ko fa yow yaa ciy jot te ci teg bakkan nga koy ànd bu fa fekkee rab dana tuxu bu fa fekkee seetaan dana fa bàyyi ko képp ku jog nag ñëw pour yàqaat suuf soosu noonu jaana koy màtt mu dee ci taxawaay Mm-hmm. loolu tam am na ci secret yi nga xamante mooy ci wàllu tabaski la ba tey tam ci baaxaayu tabaski dinaa ñëw ak yow ci wàllu li nga xamante ni mën na koy jëriñ ndax der bi ci laa nekk ak yow mooy ci deru tabaski boobu noonu ñu ngi ciy liggéeyal xale boo xamante ni dafa judd nga bëgg nga yónni ko masalan mu doon koo xam ne dafay màgg mm-hmm. ndaxte dee ci ndaw baaxut soo ko am na loo ciy liggéey nga takkal ko xale boobu incha allahu rabbi mashur lay doon ku siiw lay doon ku ñuy xam lay doon te ku ñu wekk lay doon te itam day doon koo xamante ni ñëppay am cofeel jëmee ci moom xam nga tabaski kenn bañu ko mm-hmm. kenn bañu tabaski te ñëpp moom lañ dëgmal te ñëpp moom lañ bëgg te benn mm-hmm. rek nga ci war a wut mm-hmm. kon loolu dafay tegtal ci firnde boobu noonu su ko defee boo ma amaa ci loo ma ci laajaat ma déglu la waaye mm-hmm. des na ci yeneen comme euh, jigéen ñi nga xamante ni ñuy bëgg am boroom kër euh, ñoom tamit ndax loolu itam tabaski am na ci am na ci benn cër boo xam ne ci xarum tabaski itam soo ko jëlee nga takkal ko jigéen ju bëgg am doom dafay am doom ndax mbiru doom moom def nañ ci lu lu bëree bëri bëri lu ne am nañ ci ay turandoo dugg nañ ci si lu ne dem nañ ci fu ne alhamdulilah waaye ci yoonu tabaski nag am na ci yoon boo xam ne soo ko liggéey la jigéen joo xam ne bu dut ku jaasir wallahi lazi bu ko takkee balay tabaski dal si dina yónni doomam mhm. laa shakka fii wala sax du ko mën a yónni parce que du matagum sax euh, euh, lu mu koy yónnee mais dina am doom ci gàttal laa bëgg a wax maa ngi mhm. jégalu si li ma bëgg a wax foofu tam am na ci beneen cër xam ne tam ci tabaski su fekkee jigéen ji jël na ko mu utiliser ko moom ak borom këram seen njaboot dañuy bëri te dañuy aaru te itam dañuy doon ñoo xam ne ñu wekk lay doon masalan fu ñu nekk dañ fay nekk biddéew boo xamante ni ñëpp dañ leen di ràññee kon ci wàllu doom alhamdulilah am na ci tabaski li tax nag may fàttalil jaam yi nii dama koy wax di ko waxaat mhm. mooy suñ xari tabaski yi Mm. bu ñu leen leen rek jëfandikoo yàpp wa dal di teen ndaxte amul cër bu ñu war a sànni ci tabaski xataa buum gi ñu yeewee xar mi sax mm-hmm. wallahi lasi ñu ngi ci liggéey nob goo xamante ni képp kuñ ko liggéeyal mm-hmm. sa borom kër dafa lay topp ni xaram tabaski di toppee borom mm-hmm. buñ la ko liggéeyee ngay jigéen tam sa njaboot da lay topp waaye nag balañ la koy liggéeyal dañuy xam yow la kan ak loo ciy jublu kazaalika itam ci buum googu ñu ngi ci liggéey loo xam ne yow soo ko defoon mbooloo moo jiite ñépp loo wax waaw la ñuy wax da leen di takk buum di womat te xam nga ne xaram tabaski kenn mënu koy am tamut buum te buum gee gën a yomb ci xar mi te képp ku rendi sànni ko waaye kenn mënta am xar te amoo buum parce que xar moo jënd lu mu rëy rëy bala ngay njëkk tourné xeew ko ngay njëkk def soo ko yewul mu dem kon loolu firnde la ci su fekkee da nga nekk ak ay nit bëgg leen di not ñu ngi ci liggéey bunt boo xamante nii am na nuñ la koy defalee wallahi lazi loo bëgg ci ñoom da koy am ci lu mooy yàlla du yàq bokk ba tamit bu dee ci wàllu xëccoo am na cër boo xamante ni bu dee place da mhm. mu ngi ci xar mi mhm. dañ la koy liggéeyal ñaar moo ci ne mhm. bu dee barab bi ngay xëccoo yaa ko moom euh, wala man nga fa am accès am na lu ñu la jox da nga ko fay suul su fekkee nag amoo ci accès mu doon loo xam ne nii majhul mooy luñ xàmme lu amul place la masalan di xëccoo poste wala di xëccoo loo xam ne tur rek lañ ko mën a tuddee nii su boobaa dafa am lu ñu lay jox loo xam ne danga nga koy takk soo ko takkee waxuma la ngay xëccoo noonu kese de mhm. mais lépp loo bokkati da ngay bokk ci ñi ko jiite mhm. bu dee examen boo ko defee yàlla daf lay may nga bokk ci ñuy am mhm. bu dee concours da ngay bokk ci ñuy génn su fekkee ne da ne ci barab da bokk ci ñu ñuy nommé ci poste yu baax yi nag su fekkee da am poste booy xëccoo ak nit tam da nga ciy jot kazaalika itam am na ci loo xam ne nag moom loolu boo ko jëlee moom nga am na nuñ koy liggéeyee ñu jox la ko nga def ko nombo loolu moom bul amati sikki sàkka képp koo xamante nii yaa ngi dégg nee na sa kanam rek danga koy jot mhm. dama koy tuddee ne tey bu doon ci auto su doon ci autoroute péage mooy yow sa oto moom kenn du la féetee kanam mhm. waaw duñ ko jox yaafus nag mhm. macha allah macha allah mais euh, ki nga xamante ne rab da koo dugg tamit ndax euh, tabaski bi xar mi am na ci wàll su fekkee ne koo xam ne rab da koo jàpp wala dafa am saddum jinne nuñ koy waxee wala seytaane dugg ko wala mu ànd ak faru rab wala euh, ci gàttal daal xeet yooyu yëpp soo leen limee am na ci loo xam ne ci tabaski suñ la ko joxee nga sangoo ko ci taxawaay da ngay tàggook moom amul sax ay dem suba gannaaw suba déedéet dañ la koy boo koy def rek da ngay tàggoo ak moom mubasharatan mm-hmm. da ngay tàggoo ak moom tey tamit dootu del si itam ci yow te mm-hmm. ci ànd ak benn loraange itam goo xam ne gu la ci lor la mm-hmm. kazaalika tamit ci boolu tam ci wàllu rab ba tey am na ci loo xam ne moom dañ la ko jox nga suudoo ko kër goo ko taal nag moom dëmm ak rab moom ba pare baxew nañ fa dootuñ fa taxaw hmm. dootuñ fa sax galère ci kaw suuf am na cuuraay bu ñu koy boole am na yoon woo xam ne suñ la ko liggéey la ci barab hmm. barab boobu bu dee ci dëkk sax dëkk ba xaaru na benn rab bu bon dootu fa mag ñi loolu lañu daan dàqee rab hmm. dañ daan dem foo xam ne dëkku rab la ñu dëkk fa toxal ña fa nekk ñëpp wala ñu tuubal ñëpp jàpp leen def leen jàmm kon ci wàllu tabaski am na mhm. ki nga xamante ni dafa am jafe-jafe ci néew ndax xar mi am na ci. waaw loolu am na ci. Mhm. parce que euh, am na cër ci xar mi. Mhm. am na lu ñu la koy booleel defal la ko nga boole ko xorom. Mhm. nga naan ko soo ko naanee yow pare nga dootoo yomb ilaa ajalin saman su dee koo xamante ni ku mu fekkoon kàttanam ba amul doole. su ko utiliser dafay am kàttan ba yëg ne am na ko. su dee koo xamante nii tamit dafa doon koo xam ne amul xememteef ci wàllu jigéen masalan du koy sonnal mm-hmm. mu yëg jigéen su mm-hmm. ko utiliser macha allah yàlla dana ko dimbale mu doon koo xamante ni kuy feeñ ci loolu lay doon mm-hmm. kazalika su fekkee dafa doon koo xamante ni tam jigéen la masalan doon koo xam du yëg buy ànd ak boroom këram wala kanamam du mel noo xam noonu la war a mel am na nu ñu la koy defalal suñ la ko boolelee nga ko boole koo carte di ko utiliser incha allahu rabbi bi dangay tàggoog li nga xam ne moom mooy fitna jooju noonu mm-hmm. ndaxte eh, am na ci leneen loo xam ne moom duñ ko tudd mm-hmm. waaye damay wax ne képp koo xamante ni tamit masalan da nga nekk ak sa soxna mm-hmm. am na yoon boo xam ne ñu ngi ko ciy liggéey ci wàllu woowu dafay maa eh, eh, dafay dimbale sa kàttan ba pare waaye bépp boo ko defee si sa si si sa jëfandikoo ko jaxasoo ak jigéen jigéen jooju dootul xalaat beneen góor ci kaw suuf masalan dootul tëdd ak beneen góor ku yow waaye sa soxna nga koy def nag te doo ko fase parce que soo ko fasee dootul am jëkkër waaw boo ko utiliser moom loolu dafa yéeme moom sa soxna nga koy def te dootoo ko fase ndax soo ko xasee fase rek moom dootul am borom kër ba ilaa ajalin musamman kon kooku dañ koy tëjee ki nga xam ne mooy jigéen su dee jigéen mu def ko jëkkëram tam dootu takk beneen jigéen waaw loolu moom neex na jigéen ñi waaye nag yombul ñu koy liggéeyal nit déedéet waaw waaye nag képp ku ko jëfandikoo moom sa jëkkër ujju moom doo ko am képp ku sa jëkkër ngoro day tas waaw beneen jigéen moom sa jëkkër bu dee nag jëkkër juy mooy yàlla la moom ñooñu lañ koy faral di liggéeyal suñ la ko defee kooku moom tàggoona dootul mën a mooy yàlla ndax dootul am jeneen jigéen ju mooy yàlla mhm. Mhm. waaw macha allah ñu fàttali leen ñu ngi seet si ki nga xamante ni mooy Cheikh Baye Thiam Yacine euh, fi dëkk fi nga xamante ni mooy cité Soprim Euh, moom nag euh, secret yu am solo la wax ci wàllu tabaski waaye nag secret yooyu nag pour ngeen am ci ñaan yi pour ngeen jot si yow mi nga xamante ni jënd nga sa xar yow mi nga xamante ni jënd goo ko te yaa ngi koy waajal boo ko jëndee ba pare nag mën nga koo woo téléphone balaa sax tabaski bi di jege si mu jox la secret yi ci par rapport li nga xamante ni bëgg nga ko euh, wala li nga xamante ni soxla nga ko ci sa wàllu wér-gu-yaram wala sa wàllu dund numéro téléphone bàyyi noonu ci baaru écran bi da ngeen koy woo 77 817 18 95 77 817 18 95 Euh, bëggoon nag bëggoon nañ gën a yaatal waxtaan bi mais waxtaan bi comme dañ ko centré ci tabaski bi euh, fi nga xamante ne dañ koy dañ ciy dugg mooy wàllu papier kayit nga xam nañu macha allah client yi ñu si bëri si say client bitim réew la ñu nekk looloo waral sax voyage bu bari bi euh, ñooñu nga xam ñu ngi xëccoo kayit mais ñi nga xam dañoo nekk fii bëgg dem ñooñu lan nga leen di baaxee. xam nga yàgg naa di ko wax ma ne utam kayit moom. Mhm. tëju ñàkk am këyit tëju la rek. Mhm. am këyit tam xubbeeku la. Mhm. waaye képp kuy toppatoo papier ak bu mu mënta doon. moo xam papier examen moo xam papier visa la moo am papier bu mu mënta doon wala nga nekk bitim réew soxla li nga xam ne moom mooy këyit. te man li may wax dama ci wut ay témoins. jamono ji su du woon émission buñ mën a ubbi ligne. da nga ci dégg nit ñu la wax ne la jëflante naa ak moom alhamdulilah am nañ ci tawféex. du ci buntab tabaski rek nag la ñuy jaar. mais dama ne la ci tabaski am na ci loo xam est ce xam nga ne tabaski xar mi boo koy rendi suuf si nga koy tëral sax suuf soo sax danañ koy buub di ko garder. loolu danañ ciy liggéey loo xam ne réew moo bëgg a dem boo amee suufam buñ ko booleeg moom am na luñ ciy boole boo ko sangoy da fa dem ak noo mënta demee da nga fa dem bu dee koy ut kayit la tamit soo ñëwee am na loo xam dañ la ko jox nga sangoo ko mhm. fépp foo déposé incha allahu bi mhm. bu dee réew mu sa wërsëg nekk da nga ci jot mhm. waxin la nag parce que da nga dégg ku ne la waaw réew mu sa wërsëg new déedéet nit a ngi dem Europe te du am dara nit yi ngi bëgg a dem te du dem loolu nag dafay jiital dañ lay seetal mhm. su dee sa wërsëg mu nga fa war a mën nga ko fekk nga bokk ci wërsëg yi nga xam ne wa yarzuqu min haysu laa mhm. la ko mhm. na loo xam ne si cëru tabaski suñ la ko joxee nga nekk bitim réew wala ñun ñu liggéey ko fii yaa ngi dégg defar ko parce que ci lool ci deret yi lañ koy liggéey am na loo xam ne si suuf si lañ koy liggéey suñ ko liggéeyee inchaa allahu rabbi say kayit da nga ci jot bu dee dangay ngay foofu liggéey danga ko am su fekkee ne danga dugaloon sa kayit mu yéex a génne da nga ci jot te du doon loo xam ne lu yàgg la te doo ci sonn waaw mhm. am na ci sikk macha allah macha allah am na solo ñu ñu leeral ni nag dañoo jël waxtaan bi daal di koy centré mhm. ci tabaski bi mais euh, yi ñu fi wax yëpp da koy faj même bu dul xaru tabaski bi waaw même euh, même bu dul tabaski parce que ñi may xam nañ loolu mhm. ndaxte nee leen man sama secret yaasin la ndax lépp lu ma lu fi tuddoon rek am na yeneen bunt waaye dafa fekk ne comme tabaski mu ngi jublu si nga jël ay euh, junne def ko ci xarum tabaski war ngay xam li la xar mi mën a jëriñ moo tax rek ñu concentré ko waaye amut lenn lu ma la wax loo xam ne amuñ buntam ci leneen Mhm. macha allah numéro téléphone baa ngi noonu comme ni ma leen ko waxee eh, mën ngeen ko jël ngeen daal di koy woo gaaw ndax jot bi nag du koy du koy mate boo ko woowee amaana si tàng-tàng bi jotoo ko mën nga ko bàyyil message ak fépp foo munti nekk ci réew mi ak bitim réew mën ngeen jokkoo eh, nga wax ko sa soxla mu defal la si ay ñaan eh, macha allah alors lan nga war a tëjee wala lan nga bëgg a tëjee ci wàllu ñaan bi ñu nekkoon li may wax daal mooy sëriñ bi mooy jaam bi dafay ñaan te dafay ñaanlu mhm. te doomu aadama su bëggee ay mbiram jëm kanam mhm. dafay doon koo xam ne ku fonk ñaan lay doon ku mhm. fonk ñaanlu moom lay doon ndaxte jamono bi xat na xat goo xamante ni man dama bëgg ni ñëpp na ci jàmm man loolu laay wax daay man jamono bi métti na jafe na mais na ñëpp am jàmm ñëpp am jàmm li ñu si te te damay wax ne du question xar kese de. Mm-hmm. même bu dee béy la yi tamit ndax tul gi ma lay wax nii. ci mm-hmm. tabaski boo xam ne béy la ci laa koy liggéey. Mm-hmm. soo amul tabaski bëy nag hmm. ndaxte ñun bu tabaski jotee alhamdulilah dañuy dajale cër yooyu hmm. dañ ciy dajale lu bëri waaye waxuma ne nag am naa ci lu doy nit ñi ma koy laaj hmm. ku ci am sa tabaski bopp bu dee bëy la dagan na gardeel woo ma ma wax la li nga ciy garde dee som dëppoo naag li nga xam ne moom nga bëgg ndax bu dee ci wàllu tul gi bëy laa koy liggéeyee moom dama ko def ci xar bu dee ci gàllaaju kër gi nag ci xar mi lay jëm ak yeneen yi nga xam ne moom laa la tuddal waaye tul gi kese mooy nekk ci li nga xamante ni moom mooy ci cëru bëy benn ci cër yi nga xamante ni nekk na ci bëy boo xam ne bëyu tabaski la kazalika may wax na nag ku jënd sa tabaski fexe la fexe fexe ñàkkoo soxla boo xam ne nekk na ci tabaski bi mm-hmm. incha allahu rabbi buñ jokkoowee buñ dëppoo ci li nga xamante moom mooy ci kaddu parce que baat boobu lu ma fonk la ndax man li ma amee nii foru ma ko te duma ko jël di ko mm-hmm. bazar de mayewu ma ko ndax newuñ ci loolu mm-hmm. newuñ ci loolu déedéet ñun ci lañ ne mooy nit ku xam farata ku jog ñu ngir ñu dimbale danañ la dimbale incha allahu bi maa ngi ñaax ñëpp nañ uti tabaski ku ko mën a am na ko am ku ko mënta ami tamit soo mënee am cër yooyu donte du sa tabaski nag boo moomal sa bopp garde nañ ndax yu si bëri ñun dañ koy gardeel suñu bopp mm-hmm. incha allah dañ ci jëflante ak yow mm-hmm. jàppale la ci mm-hmm. macha allah fi ñuy daanale waxtaan mooy wàllu actualité euh, ba mën nañ ko sax wax politique ndax yeewu askan bi defoon nañ mars euh, yàggul dara manifestation euh, préfet bi daal di koy nangu vendredi nangul luñu leen ko ñoom par force ñun dañuy dem ci wàllu politique ci bu dee ci wàllu nga ñu cee baaxee lan nga ci gis élection yi di ñëw li ma ci gis yàgg naa di ko wax si site bi waxee naa ko fi yomb ma sax di waxee noonu mhm. waaye noon naa leen mhm. te ku weddi na nga vérifier mhm. mooy musiba yi bëri nañ deret ji bari na coow li bëri na waaye itam jàmm ji bari na mbégte mi bëri na nañ tànn jàmm te bàyyi li nga xam ne mooy musiba te yàlla rëbb na kuy xee fitna ak koo mënta doon ndax na rëbb naa kuy yee fitna kon nañ xoote jàmm te jàmm ci la lépp xàcc nit nag du am jàmm te liberté amu ko may wax muy pouvoir muy opposition ñoom ñëpp nañ sóoraale li nga xam ne moom mooy askan wi. sëriñ bi askan wi sonnu nañ trop. sonn nañ lool lool lool lool sa intérêt bopp nag. bu mu tax mukk mukk mukk nga lor ñi nga xamante ni seen yoon nekku ci. ndaxte musiba baaxut te du baax ba ilaa ajalin musaman état bi na xoolaat li muy def. ndax njiit yontu bi sallallahu alayhi dafa wax ne njiit danañ ko laaj ñim jiitoon naka la leen jiitee ëllëg yowmal qiyaam. Mhm. te su fekkee na leen jiite woon Omar ibnu Xattaab euh, jiite na ay nit. moom di xalaat melentaan mi ci paxam ma sax lan lay dundam lan mooy doon li nga xam ne mbiram te xam ne dund gi seer na kon état bi nañ bàyyi xel ci loolu ñi nga xam ne ñoo féetee ci beneen côté bi di oppos opposant yi mm-hmm. bëgg mbir bu mu tax nga yàqu ko ndax soo ko yàqee boo si jotee defar sonnal la mm-hmm. kon nañ delloo xel yi te wootewaat jàmm te fas yéene jàmm am te jàmm mënta am lu dul Mm-hmm. li nga xamante ni moom mooy euh, euh, nit ki xeewoo ci jaamu ndax jaamu nee loo ko jëndee jar na ko mm-hmm. waaye lépp luy xeetoog musiba ak balaa yàlla nañu ci yàlla musal mm-hmm. may delluwaat nag ci ndaw yi mooy nañ ut kaaraange ndaxte képp ku utut kaaraange li ma gis nii ci kanam ndaxte yaa ngi may laaj ci mbiru élection yi waaye man sax élection gëmaguma ne mën na am ak situation bi nga xam ne dafa mu mu ngi ci toll te état bi su fekkoon dafay déglu Cheikh Baye Thiam dafay pousser élection yi bañ waxtaan ba déggoo ndax li tax mooy jamono jii nii baykat yi lekk tal nuñ jiyee seen tool yi au lieu ñuy tal di dem di voté ji te ku nekk xam na ne àll bi ñoom ñooy voté kon loolu maa ngi ci bàyyiloo xel ndaw yépp mm. di wax ne yàlla na yàlla def jàmm Sénégal mm. beneen bi nag gis nga Sénégal képp ku ko bëgg a taal da nga tàkk ak koo mënta doon ci kaw suuf nag muy état muy opposition mm-hmm. képp koo xam ne def nga musiba créé nga musiba Sénégal yàlla dana la fay musiba woowu ba mu daan waat sa kaw mm-hmm. waxoon naa ko fii daaw mm-hmm. ne la képp koo xam ne ku toog di créé musiba la musiba bi dana këpp sa kaw ku mënta doon ku doon nag te ñi bàyyi suñ njiit yu ñuy saaga moo xam ci opposition bi la moo xam ci pouvoir bi. Mm-hmm. njiital opposition saaga warul ci nit ki njiital pouvoir saaga warul ci te waxoon naa ko daaw ci seen ci témoin ngeen ci yéen ñiy seetaan site bii nii mooy ne képp koo xam ne kuy sàllaw lu kilifa la wala nga koy saaga yàlla dana damm sa ndigg dana rëq sa ndigg te da nga gis du la doy. ndax yàlla subhaanahu wa taala moom rek kay buur te moom mooy fale buur képp kum jiital am na lu tax mu jiital ko kon ñi yàlla jiital nañ yërëm ñi leen féetee suuf mm-hmm. ka leen féetee kaw yërëm leen mm-hmm. macha allah macha allah kontaan nañ ci waxtaan bi euh, ñu fàttali leen ni ki nga xamante ni mooy Cheikh Baye Thiam Yacine moom la ñu dalaloon numéro téléphone baa ngi noonu ci baaru écran bi waaye adresse bi fii la cité Soprim jaajëf ba beneen yoon salaamaaleykum wa أدائي فرضي شهري رمضاني هذه سنتي فرضا